man ma dégg bi sama numéro. maa ngi si jàmm waaw maa ngi sant bu baax nga tàngaay bi. yu tàng na moom. dafa tàng. ma ne moom tàngaay bi vraiment. tàng maa ngi jégalu ci dérangement bi. ah non non yow jabar nga. waaw loolu yow loo loolu moom am na. waaye ma gën a yëkkati bokk na ci ndax nag soxla naa ko lool sax lu ma lay wax ndax xam nga. caama dañuy dañuy xolaatu rek la yàlla xam dëgg mm-hmm. te daal nit ku nekk booy natt soxlaa tax nga ko natt mm-hmm. te it nag li gën a yokk nag ba bokkul nag bi tabaski bokkoon na ci mm-hmm. kon nag bu tabaski bi jub see te boobu ba tey déggul la boo ma ma ne la ma ne xaaral ma déplacé wu ñu ci yow ngir wax la ko nag dañ jéem maa tey tey bu gaawee ma jël ngir mën a fajee yoonu noonu daal tabaski te it bu li ma daloon korité dalaat moo tax korité tamit patiente naa ko soxla dégguma la fenn. finalement maa ngi lay woo sax mais gis naa ne sa doomu woon jël. xëy na peut-être amoon nga kenn sax pour ne ma tekki loolu. ah bëgguma daal mu dalaat ma te it damay dégg bëgguma it wax dëgg yàlla mu daal. eh waay amoon kenn sax pour bañ laa jël parce que amee lu ma waroon nag laa laaj te nag bi nag xam nga dafa o ñoo xamante ne ñoo la si jiitu yow ren nga boo door a bokk si nag natt ku ko yor njëkkoon a bokk ñooñu ñoo njëkk a tekki ngay door a tekki li ngay dégg noonu ngay wax ñu classé ko yow doo tekkee da nga jox sa xaalis te gis nga problème ñëpp am problème da ngaa ñëw sama buto yi mooy bi di la ëpp ngay seetaan télé nga def ne kër gi man aw ma problème ñëpp am problème de bu defee ne nag problème yi yow kese la sama jabar nga nag bëgguma sax di wax dara ay wax yoo xamante ne vraiment da lay vexé. mais ni nga waxee laa la tontu du ma la promettre itam ne la damay see gis ndax xam nga ne dama woote tuur laan demee tabax si te am na ñoo xamante ne peut-être ñoo la jiitu dinaa ko daal sama xel bu fekkee na xaj la ci ma tekki la bu fekkee ne xajoo si nag nga muñ ba sa heure tekki jot ma jox sa xaalis ba mu mot parce que dégg waaw mais ni nga waxee moom man d'accord ma ci man jërëjëf. waaw gars yi ah la ma leen waxoon rek nan ko def boo gis nan ko waxtaanee ko jiw. Hmm. ah keroog lan jëlee fee dégg ngeen nee na bëggul ñu ñëw fa def affaire amateur ak yooyu noonu. léegi nag i faut que ñu répété te di ñu répété moom la ñu fay yóbbu. xam nañu ñun xam nañu. Ah, waaw mbaxalam googu nag dama bëgg ñu toj ko ba mu. ba mu mokk dégg ngeen. Ah. fu nu jaar ba jàll bongo maan ak tamakat ak sabarkat bu fa jaar mu rëbbi. Ah, waaw loolu loolu yàlla dogal. waaw bëgg ngeen seen dem neex. waaw. est-ce que mën ngeen maa abal ci digg daxin gi digg daxin gi. waaye fii kon de. yow mënoon a daxin la sax mbaxal la mënoon a daxin toos yow mën a dem de loolu mbaxal la waaw si yow li ngay nekk yow li xam ne woo mbaxal ak daxin. loolu góor ak jigéen. waaw man tiit naa mënoo jàpp sax dañuy rafetee xam nga laa bëgg. yow jàppal sa jàmbur te kenn waxul la ngay def yow ngay troisième âge naan da nga dem ci ay mbaxali jàmbur. man ba ngay xam mbaxal xam waaw nga tëdd noonu rek tëdd rek xam nga laa bëgg kii bu ñu nee tri dan dina bara da ne gir sa gir sa car ki ña bax gi gén wala jar ki ña bax génn ke sa batta sura mbaxta batta bax gi dora génn bu daan kii ten euh, Cheikh Fall ñëw kaay kaay ma moom kii laa nu may ko première partie mu doxal xoolal amal nu may lu neex nu doxal ko ci der ay maana eh, eh, naan yoo wuyo maa saala bi man ngeen eh, yee yoo naan bàyyi ñu naan ñaanaa nga. Eh, laari laari. laara dama ko dafa adi bay bay bébé laayo. yee yoo. bari laale junni bari. yee ay naana saala di mani da nga ne ku ne da nga am problème. waaw waaye kenn ku ne jeexal say màtt waaw. te bu kenn xeebal kenn jàngoro. mën na xeebal ma kenn ndax ku nekk fay métti ci moom douleur ba moo ko xam mënoo koo xam man maa gën a xam fay métti ci man mm-hmm. sa këto bu baax nag surtout su mm-hmm. lu war sama jëkkër mi koy def mm-hmm. man ñëw benn jéeg bu toog ci biir këram amul jëkkër te dañ sama jëkkër ju baax moo gën sama faru baax nii fii yëpp bëgg ma faa yegg ak yow ndax nag caama tey sa xarit waaye xanaa daal loo ma dencal déedéet dencalu ni nga wax ndax tey boo ñëwee ne ma damaa bëggoon nga teggal ma ndax li may dégg yéen yéen a nekk ci koñ bi di dugg kër jàmbur yi ñu leen di wax lii wala laa wala lale gis nga man aw ma jëkkër waaye maa ngi faj samay soxla xaaruma benn numbe da ngay fajee bu daal nga teg uh, numbe ah. da ngay fajee say soxla umpul kenn waaw umpul kenn waa baax déggoo ma de waaw man seen jëkkër da ngay fajee say soxla man sa sa sa jëkkër sama géer la de tere ko mu ñëw fi feccal ma taasu ma mooy ko laa fikk ak moom waaw moom moo sa xëy fecc ak taasu ak man mi di jéegam fekku mag benn jéeg fecc ak taasu di am man ma daree am jëkkëru taasu ka sax ma ma ma bañee sëy moomu ko caamaa ko sëkk ma yab de mooy wuti taaxuraan kër jàmm waaye ma ci kër kenn maa ngi toog ka war a toog mu dëj ma fa nag ma toog toog nag nee nga di nga ko tegee doo ko teg kon mën naa bañ a dépendre ci yow te toog nag xaar te xam ne am yàlla yàlla bul ñàkk yàlla yàlla maa ngi jégalu baax a baax a baax maa ngi dem merci beaucoup jërëjëf nu ba dégg naa la da si ah, <laughs> ñu lebal la xar rek après ñu dagg ko ci baax na yàlla baax na sëñ Fallou rek eh, sëñ Fallou ñoo ko bokk sëñ Fallou fa sëñ Fallou ñëpp la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 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire yi tey ngeen dee marié yi am ngeen lu xamal xam ngeen li ma leen wax eh DKR 221 abonné